beneen nuyu naa. waaw ñu ngi lay ziar di lay fay bu baax a baax. loolu. waaw maa ngi sant yàlla rek. di jullit balaa maa ñëw ci làmb yi damay ñëw ci MMA bi. parce que fan yee passé dama fay déggoon da nga am combat MMA sa digganteeg booy Sadio coow li bari trop ñu ñëw ba ci ba ñu ne beneen dafa ñëw ba foofu daw nanguwul bëre nee na dama doon taw moon ay moment bi amul man daal ay détails yu xamante xaw compliqué laa ci dégg loolu naka la demee waaw dañuy sant yàlla rek parce que xam lu tax lu tax dañuy sant yàlla ndax booy Sadio lu ma ko bëggoon def man ak rek ko xam moom nag ñëpp ak baaxoo nañ xam nañ ni waxkat la ñëpp xam nañ ni xaw man la man jour làmb maa ngi foon jour combat bi ñëwoon nga ñëwoon naa maa ngi foon maa ngi dégg ñu nga ñëw ñëwoon naa te ñu ko fekkee ñëpp xam dañoo dem ba làmb ji mënatul am ndax case bi ñu taw bi moo si laal day di tax ku tëggal euh, combat moo ñëw ne ma mën nga ñibbi parce que combat mënatul am. moo leen wax loolu. ku tëggal euh, làmb ji. tëgg bi. moo ne leen daama mën ngeen a ñibbi ndax MMA bi mënatul am. gars yi bëri ñoo demoon moom moo waaye ba gars yi dem mu dugg si case bi di def ay film am moom acteur la day deux films tricase yooyu pour muy comprendre nga si. nee na nag boo ñëwoon dina la teg lu métti. non moom mënu ma def lu métti ndax tuuti na si yow xam nga ni mënu ma def lu métti kooku làmb ji ñëpp xam nañu waxkat la ñëpp xam nañu waxkat la looloo tax man loolu du ma si sori quoi te bëgguma di koy may bës di si wax muy xam ne maa ngi ciy wax bëgguma ko sax dama ko bëgg a bàyyi muy wax rek comme moom waxkat la. nag damaa gis nga jël sama copain muy Nguer bu Zap Nguer nga jël combat bu la moo dugal ci Nguer bu Zap tamit nag. non Nguer la. non Nguer làmb moo ñu boole sant yàlla. dama koy sant di koy gërëm bu baax a baax ndax ba nangoo jël combat bi ndax bëri na ay samay morom yoo xamante ay jeune lañ nangoo ñu jël combat bi ndax ragal kon ngeer su ba nangoo teg. beneen la lan la gars yi ragal ci yow. ah man xaw ma gars bëri tapet de ah, waaw. ñi gën a rëy lamb ñoo gën a tapet a rëy lamb ñoo gën a tapet. sa combat yaag yaag yaag yaag ñeer kañ la. waaw novembre la xam naa novembre lay doon incha allah. tey ngeen ñëw ci open press ki nga xamante ne mooy Dioum 2 naka nga ko gisee. waaw open press bi foog ñu ñëw parce que dañoo bokk lu ñu mënut a séddoo muy parcelle te Dioum 2 da nit koo xamante ne lu waay xew la day ñëw kon ñun suñu ñëw rek duñ gor loolu tax lu ñu jàppoon lu ne dañ ko bàyyi ñëw comprendre noo ko gisee. waaw waaw <laughs> sant yàlla rek. noo ko gisee naa gisee Dioum 2. gisee mu ngi ci liggéey na lu mu war a liggéey dañuy xaar jour la rek yàlla may ko ndam. mais nag gëj a bëre bi est ce du du ci feeñ parce que booy bi muy bëre tam dafa mën booy ji. waaw non soo gisee du du mën a feeñ ca xam nga lu tax du mën a feeñ ndax gars yi ñu ngi ko doon préparé nekkoon ay mbër yoo xam ne dañu doon bëri mbër soo jaxasoo rek yaa ngi ci làmb quoi te jumtoo nangu na lool te nangu na ànd ak gars yi liggéey ñoo far.